الحمد وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا عبد وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا لو سناي وردوان بلا سقط مسقط من بني بيمان أنصارا aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah barki xaadimu rasul mbokk yi ñi teewlu te di ñu seetaan ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziyaara di jël nuyu soxna maam Issa Mbacke min sëñ Modou Fati Xeere ibnu Cheikh Mazamba ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoom la àndal bàyyi ko Sénégal di ko jox mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi nga xam ne toog nañ ko ñu toog nii ak euh, honorable député euh, Mor Kane Ndiaye euh, mu représenté maanaam ñu bari bari ñoo xam ne fii ci Mauritanie dañu fi nekk fal ko mu nekk fi seen député daaw ci waxtu wi mi ngi doon bëgg loolu yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy dogal dogal ko mu ñëwoon fi daaw. diis ko soxna si mu ñaanal ko ci tukki bu barkeel bii di màggalu Sarsara yàlla dogal ko ren kon bu jógaatee ñëwaat seet siwaat soxna si mooy wax matal na kóllëre ndax Sëñ Abdou eh, koo xam ne sa waxi daaw ak sa jëfi benn la kuy seet ab jullit wala as gor mën na laa jàpp te bu fekkonte ne dafay ñëw daaw ñaan loo soxna si ren yàlla may ko ndomba tànk ba mu bañ fee ñëw kon jotaay bii duñ ko def waaye bu ko defaatee tey mooy wane ne li mu waxoon ci la nekk kon nag ñu ngi lay nuyu baax ci turu soxna si te di la jox cër bi la yàlla jox di la ñaanal bu baax tam mu jig la te nga am ci ndam te ñi nga xam ne tam ñoo la ko fal yaakaar ji nga xam ne moom lañ am ci yow yàlla na nga ko matale ndax loolu rek moo tax ndax bu ñu la jiitalee rek yaa nekk jaamu ñëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon doxee ñi fi jaar ñëpp tam di ay njiit ci wàllu àddina la ci wàllu diine lu gën a bari ci coono yi ci ñoom lay dellu ndax jaamu askan wi rek lañ war a doon Euh, soxna si nag nee na xolam sedd na bu baax a baax ndax moom dafa amul lu may sëriñ tubaa ci biir sëriñ tubaa tam ci barab yëpp lay liggéey ak xew-xew yëpp waaye xew-xew bii nag dafa bokk ci xew-xew yi ko gën a ñor nga xam ne képp ku ko ci jàppale wala nga yëg ko ci jàpp na ne ci moom nga bokk kon nag déplacé wu bi nga déplacé wu ñëw seet si ko masawu ko coono loolu képp doy na ko kon nag mu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la sant ci turu ay bokkam ah di la yóbbante tam loo xam ne sañees na ko ndax yàlla dafa dogal àddina nit mënu fee ñàkk kilifa eh, kilifa itam ñaar la benn bi kilifa diine la kilifa diine amuñ ci ko weesu Sëriñ Tuubaa waaye itam réew mi itam dafa am kilifa kilifa réew mi mooy ki yàlla tànnal waa réew mi mu jiite leen eh, ñun nag lu ñuy bëgg rek wala ñu koy sàkku ci luy jàpp na liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi rek lay doon eh, loolu moo tax ñu ngi lay yóbbante ci kilifa réew mi ziar bii nga xam ne waa Sénégal yëpp xemmem di fi ñëw te soxna si yàlla jiital ko ci te bëgg na bu jógee di fi ñëw benn jafe-jafe du am ñu ngi lay yóbbante lépp lu ñu ci mën a jàppale ba yoon bi gën a yéwén loolu moom lu luñ bëgg la te di ko sàkku te it képp ko ci jàpp def ko tam lañ fay wuti danga nga ca am ndax ki jóg di tukki nga jàppandal ko tukkeem lu mu am ci tukki ba nga am ko te tukki bii nag sàkkooñ fi lu weesu li fi sëriñ bi digee muy ku fi ñëw rek tàggoog bàkkaaru àddina tàggoog bàkkaaru àllaaxira te ñi fi ñëw ñëpp wala képp ku mas a jël sa alal wala say pexe def ko ci sarsaara résultat ba yaa ko waxal sa bopp ci kanam soxna si kon nag loolu ñu ngi koy sàkkuwaat baax ginnaaw bu ñu la santee ci li nga xam ne man nga ko la ñu ca mën a jàppale jàppale nga jox la nga xam ne nag kilifa yi kaw ñoo koy man dañ koy jaarale ci sa loxo teg ko ci yow nga jottali ñu ko kilifa gi ñu gën ñoo jàppale bu baax a baax ñun nag duñ jàmbat ndax sëriñ taxaa daa wax ne ñaari mbir moo indi problème ci àddina mooy jàmbat ak ñàkk a teg sëñ Tuubaa fa nga ko war a teg kon nag ñun jamono bu nekk dañuy sant bu nu doolee nag ñu jël di ñaan tam eh, yàlla sunu borom subhanahu wa taala eh, képp koo xam ne yaa ngi dox ci lu nuy jàppale yàlla di gën a yokk say maqaama ci wet gu ne démb tam bi nga ñëwee Sarsara la nga fa wax ci wàllu jàkka ji wax ne danga ko jottali eh, kilifa réew mi loolu tam rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax ndax mi ngi def ci këri diine yi waaye tam sunu sañoon barab bi Serigne Touba nekkoon nga xam ne am na fi juróomi at lu ne mu am ko fi ci teraanga ñu wax ne lañ fay njëkk a taxawal néegub yàlla lay doon néegub yàlla boobee tam li ko war a def bari lool ndax ku ne xam na ne dafay mel ni ñaari jàkka la ñuy tabax la ñaari juma ndax matériel bi li ko yóbbu dana toll ni lañ fa tabax ci jumaa ja ak jumaa ja kon nag loolu itam ñu ngi leen ci sàkku ak jàppale e, te sëriñ bi rek tax ngir liggéey boobu mën a àgg bañ sumb fa yeneen liggéey ndax sëñ Mamoun mu sëñ Fall nee na ab jàngukaay war na fa kër sëriñ Touba war na fa yeneen ak yeneen war na fa kon yooyu yëpp tam Euh, bokki taalibe yi ñu ngi ciy def nag liñ man seen kéemtalaal kàttan waaye nag bu ñu ci jàppalee itam ñu jël euh, kon nag loolu rek lañ bëgg na wax ci turu soxna si di la sant ci turu bokkam yi di wéy nag di la ñaanal yàlla gën laa defal ndam ba bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Mauritanie te Mauritanie ak Sénégal euh, di di benn peuple boo xam ne sëriñ bi li sëñ Maamun waxoon ne intégration africain sëriñ bi defoon na ko ndax ñett ci ay leeram ay ay ay ay naari gànnaar ñooy seeni wajuru jigéen loola mooy tax ba diggante ñaari réew yi benn réew la boo xamante ni bii li fi jaadu rek mooy eh, ñu bañ a xàmmee ni kii sénégalais la kii mauritanien la waaye lépp jàmm am te jàmm nag moo gën ci ki jiite njaboot kon loolu ngi leen ñaanal ñaan mu dem yàlla na fi sax ba diggante bi gën a ratax ba ñaari njiiti réew yi liñ yéene ci i askan suñu borom defal leen ko ni ñu ko bëgg ci barki sëriñ Tuubaa lii daal mooy kàddu yi ma bëgg na yëkkati ci soxna si lu ci dëng nag ci ñun la lu ci jub tam ñu sant ko suñu borom di santam waa presse bi di la ko seedeel ndax ñoom itam ah mënoon nañu teg lu diis waaye dañu ànd ak ñun rek ngir yàlla di ñu jàppale ci liggéey bi di ko siiwal di ko àggale fu mu àggutoon kon ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu soxna si bu baax a baax ak mboolem ñu mu àndal ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaatu wa salaam ala rasulillahi barkab Seex al Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, soxna maam Issa Mbacke ibnu sëñ Modou Faty Khary ibnu ñu ngi lay nuyu di leen siyaar baax a baax. ci turu honorable député Mor Kane ak ñi mu àndal honorable député bi muy ñëw ànd na ak délégation ba am solo ngir fonk la ak am fu mu la teg ak xam li ngay liggéeyal sëriñ tubaab ci àdduna bi moo tax mu ànd ak jëmm ji nga xam ne mi ngi toog suñu ginnaaw ñu koy wax Pape Gueye nga xam ne lépp lu mu fi nekkul lépp lu mu doon lu ne moo koy matale topp ci ginnaawam. ànd ak seex mu ne di sa doom ànd ak man mii nga xam ni maa yor lépp loo xamante ni ci wàllu lu ñuy installé la ci dëkk bi muy sama xarit di sama doom ndey kon ñu ngi lay nuyu ci turam di nuyu ci mboolem Sénégalais yi fi nekk lépp ci dëkk bi euh, di la jibal ay kàddu yoo xam ne nag moo ne ci moom ndax alxuraan dañoo ma shahidna illaa bi ma alim na jëmm ji jëmm la joo xam liggéey Sëñ Tuubaa rek koñor président Macky Sall dafa toog fii ci palais de congrès man ko président mun naa man ko jëmm ji ku sa ndey nekku ci àll bi sa bàyyi nekku fi sa jarbaa nekku fi sa nijaay nekku fi bu la falee am na lu tax ndax ab àll kenn du ci fal ci nit noonu ñi fi ne ñëpp bari na ñëpp wóolu ko fal ko kon am na lu tax loolu ay qualité la ci moom kon nag ñi ngi ñaan sunu borom soxna si nga ñaanal ko ba lépp li mën a liggéeyal Sénégal yi fii ci dëkk bi suñu borom defal ko suñu jort te li mu yéene Sarsara tamit sunu borom defal ko lu kawar suñu jot lépp jàppan ci barka Cheikh Al Khadim ah ndax nag am nañ ci rafet njortu baax ndax daaw ba ñuy ñëw di ànd ci yow nga naan ñu ànd man ak moom ca Sarsara fekk la fa nga toog ñu ne ko Mbàkke kii day day xëccoo honorable député moom euh, ci diaspora bi nga wax ca la nga ca wax firnde jaa ngi nii bàyyi subli sëñ Mbàkke maaram yal na yàlla guddal sa fan te nag wax day tungoom seede wax day tungoom seede seede saa ngi nii yaa ko ñaanaloon daaw sunu borom defal ko li mu ko defal ñaanal ko tamit sunu borom jàppandil ko liggéey bi te tamit di ko ñaanal nag sunu président Macky Sall sunu may ko sunu borom may ko premier tour mu gagné ndax ragal peut être xañ a wërsëg nag Mbàkke bi mën nga ko bu la neexee mu am ndax nag sibti ka sibti rasulullaahi su badaa Sëriñ Tuubaa nee na sama sëtu sëtu rasulullaahi benn yaay sëtu Sëriñ Tuubaa yaay sëtu Sëriñ Masamba Sëriñ Masamba mu rek Sëriñ Tuubaa kon yaay sëtu Sëriñ Tuubaa bale sibli seen bakkaar ma yéen yàlla gudd sa suñu xol seet na bu baax a baax suñu xol seet na wallahi yàlla xam yàlla day gis Sëriñ Tuubaa ci biir képp ko xam senegal xam la xam ne si Sëriñ Tuubaa ngay xëy ci gont waaye nag kenn ku nekk ku xëy la mu añ am rek la lay añale bale si buri yàlla yeggul de sa fan kàddu yi gudd na waaye lépp lu jub suñu borom la lu ci dëng suñu jëmm ji ñoo ngi koy jéggalu ngir jëmmi Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf sa saako la am xëyral asalaamaaleykum euh, bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah barke borom Touba euh, maa ngi nuyu ñëpp soxna si maam sa Mbàkke maa ngi lay nuyu ak sa mbokk yi nga àndal yëpp di gërëm sa coordonnateur bu baax ndax ci wàllu yu mu féete mi ngi koy matale ndax démb ba léegi lu baax lu ne mi ngi koy def mi ngi koy wax soxna si suñu teewaay bii fii tey danoo ñëw pour ziar si la feddali suñu kóllëre ndax heure bii daaw comme ni ko sama mbokk mu baax mi wax Ibrahima Thiam ñëwoon nañ fi am lu ñu waxtaane woon muy li jëm ci jongante bi ñu nekkoon gis nañu ñaan yi nag ndax yàlla nangu na yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la ci gërëm li ci des moo di ñëwoon pour massawu la ndax bët ki démb ba léegi ñu ngi nemmeeku délégation yi nga xam ne nii ñoo fi ñëw ba egg nañ ci ba ci téléphone ca Rosso information yëpp eggsi na di am nag naqar ndax bu ma sañoon bépp sénégalais bu jóge Sénégal ni day ñëw fii ci Mauritanie war a jàll Maroc Tunisie Algérie ba Égypte benn Sénégalais du fi am benn jafe-jafe te loolu mooy sama rôle dinaa ci taxaw ni mu war a taxawee lépp loo xam ni mën nañ ko ci dinañ ko ci def lu ñu mënul sax dina jéem uti ko pour ñëw yombal lal Sénégalais yi seen ñun koy waxee seen circulation fii ci zone bi nga xam ne nii ci lañ nekk muy département Afrique du Nord bi yëpp le Maghreb ndax ñun ñooy honorable député du Maghreb représenté sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp ci Maghreb bi loolu ci wàll boo xam ni sénégalais yëpp ñoo ko bokk waaye nag ñuy wax ragal féete day xàññe wërsëg te rawatina ñu bokk loo xam ne ni kenn mënu koo séddoo mu di Sëriñ Tuubaa te ba nu juddoo ba léegi si la ñu tàggat ci ak taalibe yar ñu ci ba tey ñu koy doxee kon mën naa ni lépp lu may def rek moom moo tax ma di ko def te yaakaar naa ni ku jóg di liggéey ngir Sëriñ Tuubaa dina la jàpp moo lay jàppal boppam dina la dina la teral dina la jàppale dina la jox tous les moyens yi nga xam ni moom nga soxla jumtukaay yi pour liggéeyal ko comme ni mu waree rawatina nag mu di lu yombal ci seen ñëwin fii ci Mauritanie mu di suñu bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ am muy sarsaara ñun muritu gànnaar sarsaara la ñuy sagoo moom la ñu am donc lépp loo xam ne def nañ ko benn war nañ koo def fukk yéen ñii di ñëw da ngeen war a ñëw fekk lépp mat ngeen ñëw rek toog ziyaar ñaan seeni ñaan daal di wëlbatiku dellu seeni njaboot loolu bu soobee yàlla ñun si la ñuy xëy ci la ñuy gont jafe-jafe yi nag bari na waaye incha allahu rabbi dinañ ko jooytu fan ko war a jooytoo te yaakaar na ni dinañ ci am ay solution du yàgg dara ndax ñaari réew yi dara xaju fi jàmm rek fi xaj te jàmm ji fi ne moo waral li yëpp jàmm bu amul woon li yëpp du am kon ñi ngi ñaan sëñ soxna si ngeen dolli ñaanal ñu ba jàmm jooju gën a sax ci diggante suñu ñaari président yi nga xam ni ñoo jiite ñaari réew yi mu di Abdoul Aziz Mohamedou Abdoul Aziz fii ci Mauritanie ak suñu président Macky Sall euh, ci Sénégal yàlla def na sax man dama am double mbégte ndax bii ci guddi la fi ñëw kon li ma leen di wax ni dina ko jot bu ma jokkoo bu ma ko gisee tey fii fii laa ko koy waxee ngeen xam ni yéen a ngi fii message bi fii laa ko koy waxee te xam naa ni bu ma ko ko waxee incha allahu rabbi dina ci def kemtulaay kàttanam parce que gis nañ Sénégal ni nga xam ne nii moom lay taxawoo këru diine yi mu di Touba Ndiassane këru diine bàyyiwul fenn la mu fa def jéggi na dayoo donc yaakaar naa ni ñun nag muritu gànnaar sarsaar la ñu am sarsaar la ñuy tiiraroo donc dinaa ci wax ak moom incha allahu rabbi ngir mu jàpp ci bu baax a baax a baax a baax la ma leen wax démb nag moom laay wax fépp fu ma dem dañ fee am ñun sëriñ Touba mu di sëñ Sidi Maxtaar sëñ siidi euh, Mourtala moo fi ne uuf ñëpp boole ñëpp yilif ñëpp mën naa ni amul xàjj amul seen képp ku ko soxla boo demee ubbi na ay buntam tëjuwul te tànkam luwul tamit kenn kooku lépp lu may def ci moom laa koy commencé ndax moom démb lañu woon tey soog ñëw donc soxna si maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal sañ Touba fii mu mottali ko di leen sant bu baax di leen gërëm ci vraiment ci déplacement bi ndax lii bëgg sëñ Touba rek moo ko waral waaw bëgg sëñ Touba rek damaa bëgg tamit ngeen ñaanal li ko daxee dalee Mauritanie jàpp Maroc Tunisie Algérie ba Égypte nekkinu nu yi gën a ñoŋ ndax autorités yi ñu ngi koy liggéey. ndax yàlla kàttanal leen ba vraiment li nga xam ne nii bëgg nañ ko fi nekkin bi ak yëpp mu gën a ñoŋ ba benn sénégalais du fi am benn jafe-jafe ndax man mooy loolu mooy suñu rôle moo taxit ñu fal ñu wàcce tamit moo tax nga jàppale ñu kon ñun tey bu ñu siggee rek yéen a siggi ndax yéen a ñu jàppale ba tey fii ñu jàpp ñu jàpp fi fii ñu ne ñu ne fi donc yéen mën naa ni yéen la ñuy mbubboo yéen la ñuy doxee yéen la ñuy waxee donc di ñaan yàlla vraiment yàlla bu ñu gisee déwén ak ay déwén yi te duñu di sëgg ndax lii ñu ne député gii dafay jeex dafay jeex juróomi at la bëgg naa nag su jeexee li fi neewoon ne fi yokk sax mu di taalibe ndax man honorable taalibe ni ma koy waxe moo ma gënal lu ma mënti am ci këru àddina donc sëñ soxna si maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax wax ji gudd na nag waaye day dayoo dayoo dayoo bis bi ak ni mu toll si ñun muritu gànnaar moo tax mu mu mu demee noonu ñoo ngi lay sant bu baax di leen gërëm abdi wa sukuri mal kulli bi saara law